Bienvenue sur Salam Vision. makkisila oɗo gandi makkisila makkisila waɗi mon on fof huude ala ko makkisila waɗnan ɓuura gorko woni ɗo gorko sud on jii ɗum nafoore makko kayito o woni ko nafoore waɗi hen neni nafoore woni hen o ko ool o changi ɗum o waɗi tampo oola ɗum woni hen kala mo jiiɗa tampo no woni hen ganda kanko woni makki silla ñaaguede allah e nelaɗo mum yo allah walla men yo allah walla makki silla gaño e mairie golf ko jinneɗen ko dañen ɗum alhamdulillah rabbil alamin bonjour euh, Euh, Naforé de la commune de Golfe Sud. Voici, nous vous présentons notre nouveau euh, bulletin qui est de couleur blanche avec des écritures en vert. Euh, pour voter, il suffit juste de mettre euh, ce bulletin. Il faut juste le plier en quatre. C'est le bulletin de couleur blanche avec des écritures en vert avec une en-tête en jaune. Donc, il faut le plier en quatre comme ça. et vous prenez l'enveloppe, vous l'insérez comme ça dans l'enveloppe. Voilà, et vous mettez comme ça. L'enveloppe, vous le mettez comme ça. Il ne faut pas coller l'enveloppe. Et vous, vous prenez l'enveloppe, vous le mettez dans l'urne de la commune. Merci beaucoup. c'est Macky Sall Nafoore nouvelle alliance des forces républicaines Nafoore. Euh, maa ngi tudd Ndeye Khady Dramé euh, di responsable des femmes ci parti LDR Yeesal euh, bokk ci comité directeur bokk bureau politique ñëw nag ànd ak monsieur le maire si la ci listam bi nga xam daf ñu ci investir ñu di ko wax Nafoore waaw. léegi ñu lay laaj tey li nga xamante ne am na mooy dañ leen di ko jox benn bulletin. Mhm. ñu dem ba ci biir ñu changé bulletin benn bulletin boobu baaxul léegi nag beneen bulletin moo génnaat. Mhm. tey nga koy a mhm. nga may nga wane seen bulletin. waaw euh, changement bi moom euh, à la dernière minute lañ ko def mais nag li may wax rek xam nga bulletin lañ mën a changé mais doomu adama yi kenn bu leen changé. waaw ndax nit ñi am nañ engagement am nañ détermination te Mbacké la mi ñuy àndal ci listam bi dina foore kenn mënu ko changé mën nañoo changé couleuru euh, list bi mën a changé li ci nekk lépp mais kenn mënul changé li ci xelut doomu aadama yi ak bëgg nga xam ne moom lañ bëgg monsieur le maire Mbacké Sylla loolu nag mooy tax ñu indiwaat ba bulletin bi di ko wan euh, suñu militant yëpp ak militante yi ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak euh, monsieur le maire Mbacké Sylla ñu xam ne bulletin bi léegi mooy bulletin bi baax moom la def jox démb allah la dernière minute macha allah. Hmm? merci beaucoup maa ngi leen di sant yéen tam bu baax a baax di wax ñëpp rek nañ jóg takku joxewaat léegi bulletin yi fi ñu jaaroon yëpp ñu jaaraat fa euh, dina xaw a yàgg waaye dara du metti incha allah ndax engagement bu mat sëkk lañ ci am fu ñu jaaroon rek dinañ fa jaaraat lu ñu dugaloon ci suñu groupe whatsapp yi nañ ko tudd dugalaat pour ñëpp même am même information incha allah. auzu billaahi mina sheytaani rajim euh, salaamaaleykum askanu golf sud ñu ngi leen di nuy di leen ziar euh, di ñëw rek tey am quelque information yoo xamante ne dañ koy partager ak yéen par rapport ak suñu candidat El Hadj Mbacké Sylla bu golf sud jëm ci li nga xamante ne mooy suñu ay bulletin parce que depuis ba campagne bi commencé ba léegi joxoon nañu ay bulletins yoo xamante ne moom lañ doon campagne di ko jox suñu ay nit suñu ay am di jàmm jox ko askanu Golf Sud yëpp yàlla def na nag pas plus tard que hier préfecture woote na ñu dem préfet nañu bulletins yi ngeen yore woon da ngeen koy changé parce que am na yeneen partie yoo xamante ne couleur yi la ñu am loolu nag nekk na handicap ci ñun nekkul handicap ci ñun parce que élage Hadj Mbacké Sylla nit ñu ko fal ñoo ko bëggal seen bopp te information bi incha allah rabi dinañ def tout pour mu jàll ba nga xamante ne bulletin bi nga xamante ne moom la changé ñu amoon bulletin bu jaune léegi ñu joxaat ñu bii bulletin ne mooy suñu bulletin mooy bulletin Nafoore moo waral teewaay bi boo waral jataay bi pour que ñëpp képp koo xamante ne rek fas yéene nga wooteel ki nga xamante ne mooy élage Hadj si la ci commune du Golf Sud suñu bulletin mi ngi nii mooy euh, fond bi blanc la écriture yu vert la cadre bi ñu bind na foore gis ngeen ko mi ngi nii pour que ñëpp xàmmee ko incha allah rabi ngeen jox ñu voix yi xam ne El Hadj si la moo fi gën. El Hadj Mbacké Sylla mooy maire bi nga xamante ne moom la ñëpp bëgg te mooy maire bi nga xamante ne moom la ñëpp bëgg ñu toog fi def nañ fi sondage macha allah moom moo nekk ci tête de bi suul keer nag du ko tere feeñ ñoo ngi sant ñëpp di leen féddiliwaat suñu confiance di leen jox rek mu le mu wax ak yéen. jataay bi nag ñu ngi toog ak El Hadj euh, Ibrahima Top bi nga xamante ne mooy chargé des élections toog ki nga xamante ne mooy Ajaratu nday Khady Dramé moom tam mi ngi ci liste yi responsable fii ci Golf Sud bu mag présidente des femmes toog ak Aminata Chimène Ndiaye présidente jeune mi ngi fii toog. toog ak euh, ñi xamante ne ñëpp ñu ngi ci liste bi ñoom jigéen ak élage yi toog yëpp ñu ginnaaw voilà pour fas yéene daal maire maire Mbacké Sylla waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moo jëm par rapport ak liste yu ñu changé jërë ngeen jëf. benn bi ndaw am na ci. Mhm. mooy bi nga xamante mooy bulletin la foore ci biir jël ko moo leen tiital wala lan la. loolu bëgg nañ ko ñu na nekk duñ ci tontu parce que ñun wax jotagul ci ñun fu mu nekk nii dañuy ne pat rek liggéey lu ñu liggéey ak li nga xamante ne ñi nga xamante ne ñooy ay militant ak militante bés bu ñu demee rek ba nga xamante ne toll nañ ci wax dinañ wax ñëpp dégg ñu incha allah te bu boobaa yal na ànd ndam li nga xamante ne moom la ñu sàkku jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sant di wax di nuyu. commune Golf Sud yëpp bàyyiwuñu góor ñu jigéen bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw ah bala ma ci dugg nag ma gërëm je ma staff bi nga xam ne ñoo ma dar gërëm jigéen ñi góor gërëm góor ñi gërëm xale yi nga xam ne si liggéey bi yëpp biñ boobaak léegi tooguñu guddi bu tooguñu bëccëg ah, metti na nag ndax defe naa ne dañoo amoon suñu doole lépp yemale ko ci def ko ci ay pla yëpp dugg commune par gox par gox ñu fen ñoom xale dama leen di yërëm sax ndax duñ guddi bëccëg duñ toog duñ noppalu fu nu war a dem dem nañu fa di gërëm mag ñi xam fu ma jëw topp ci man mag ñi sama ginnaaw taxaw di gërëm équipe ñi ma moom ñoom laa ndal muy topp mi ak kine sa wax ajaxay ak Fatimata Diaw ak xale yi ñu baax yi nga ñoo ñoo ma darte di gërëm sama mag ñi nga xam ñoo ne sama ginnaaw ñu baax xam ne dañoo ñeme coono jigal ak ñoom ñëpp rek bawuñu ma kenn xalifa ñoom dama wax ne liggéey beeg si fii ñoom la tax ñu def ko xam nañ ko la tax ñu def ñu sensé li toog ba léegi dernier mi ñu wax ñu ñu kii ko xam nañ xam nañ loola bu ñu bàyyi woon bañ dem élection danañ xam waaye nag <laughs> dara passé wul bulletin bi démb lañ ko jot bu yàlla ñaari fan ci lañ koy liggéey incha allah fu ñu ci war dem dinañ fa dem fu ñu war a taxaw dinañ fa taxaw ma xamal leen ni bulletin bi daal mooy suñu bulletin bu bi mooy bulletin bi nga xam moo gën a wóor bulletin bii ñu ko ajaa ki ne waxee mooy bulletin bi wér bi wóor mooy bulletin bi nafoore bii bu bi écriture bi weer nafoore bi lu jaune bëri ko moom weer nañ nañu ko xàmmee bii mooy bulletin bi nga xam ëllëg moo leen di xettil yéen waa golf loolu na ko xam bulletin bii mooy bulletin bi ne moo ci programme yëpp lépp luñ ci war a nañ ba ci programme yi lu ñu war a def xam nekkoon nañ fa xam nañ li fi ne ñoom dañoo dem ba ci biir ñu tiit moo tax ñu changé ba yooyu yëpp man amul lu ma solo jóge seen i kër ñëwaat ba ci biir këram ne leen ñun waa Golf dañoo sonn te ñun waa Golf dëpp ba fi jógee ba léegi ñun sonn nañ gisatuñ seen bopp ci biir Golf tey ñoom ñu jugaat ñoom mag ñi ñëwaatee ci biir kër Macky Sall la newaat ko dañoo bëggaat ñu ñëw takkuwaat jëmbaliwaat waa Golf loolu tiital nañu bari tax na ba Macky Sall la képp ku ko déglu nelawatoo tey ji la foore tey fu waay toll dégg tey ji est-ce que nekkul gars yi looloo lañ tiital ñu dem ko ci biir changewaat ba tey indiwaat leneen est-ce que ñoom calcul bi ñu na yi est-ce que leen ba pare moo tax ñu bëgg a taxaw bëgg a nañ xam xew parce que ñoom may topp golf fu ma dugg premier temps fu ma mën a dugg kenn ku nekk na dañuy dañuy mag ñi ñoo dawal génnal seen bopp xel yi daw génn seen bopp ñu xamuñu ne bokk nga. waaye ginnaaw bokk nga rek jàmm la ñooñu tax ñun def li xam nañ defuñu mag jëmm lañ xam nañ joxew waaw yàlla na la ñu ñaan yàlla dimbali ñu nag suma bulletin daal laa mel ma wax mooy mii nii na ko ñëpp xam waa golf yëpp nañu xam ne bulletin bi mooy bulletin Mbacké Sylla mooy bi ma nekkal équipe bi ma daaf defe naa ne looñ ciy seet ma ci ñu góor ñu jigéen kon nag yàlla na yàlla dimbale ba bañu bañu bañu ba ñu ba yéene bi ñu amoon démb am ko tey ñu mën ko eggale te yéen loolu rek moo ñu yëkkati leen yëkkati defal gol ànd ak jigéen ñi ànd ak xel yi ànd ak ñëpp ñu gërëm ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kon ñu joxaat kàddu gi rek euh, El Hadj Ibrahima Top mi nga xamante ne mooy chargé des élections de Nafoore El Hadj Ibrahima Golf Sud man Ibrahima di seen xarit di seen doomu ndey di kenn ci yéen maa leen di nuyu di leen ziyaara di wax ci turu Nafoore di wax ci turu El Hadj Sëriñ Mbàkke Sylla bi nga xam ne mooy suñu tête de liste di suñu candidat di suñu yaakaar fii ci golf ci àdduna ci golf sud ci élection yi nga xam ne ci lañ jëm <clears throat> sama kàddu mën naa bañ a gudd bi ñuy commencé processus électoral bi nit ñi jàpp ñu woon sax ak comme outsider li tubaab li tubaab di outsider maanaam koo xam ne kër warul gagné maanaam mën naa figuré waaye du gagné maanaam tokaar daal la ñu jàppoon bi ñu demee ci biir ñu def sondage bi ñu defee sondage yàlla suñu borom subhanahu wa taala def nit ñi daal yàlla def suñu suñu suñu candidat def ko ci xolu nit ñi ñu daw wutal si ko en masse fi mu nekk nii deux heures du matin trois heures matin lay tëdd la ñu tëdd te moom du ñu bàyyi mukk benn yoon ndax moom ñoo moom ñooy nekk bi ci mujj mooy waa synergie Sénégal banlieue ki ko jiite di Pape Amadou Ndaw ñu koy gërëm au passage di ko sant ci courage am waaye ci xel xelam mu ñaw macha allah bi ko yàlla gindee ba ma gis Mbacké Sylla mi mu ne xool naa candidat yi ci Golf Sud yëpp ñu toll ci juróom-ñetti candidat ba ma xoolee programme yi ñu fi nekk yëpp dama cee tànn nag ba su Mbacké Sylla ba mu defee loolu mu woote moom ay waa këram maanaam ñu ànd ak moom ci synergie Sénégal bool ya waxtaan ak ñoom ñu ne ko ñun de li nga gis gis nañu ko waaye comme waxoon ñu woon dara moo taxoon ñu ne tekk waaye fa nga xool foofu lañu xool na nga gis la ñu gis neexul ba neexul waaye candidat bi gën ci candidat bi mën ci candidat yi mooy Serigne si la ñu daal di jël seen courage à deux mille def point de presse def naa ne point de presse bi Sénégal wër na Sénégal waxuma la golf waaye war na géej waaye na golf ñu joxe seen engagement bu wér sans contrepartie maanaam laaj ñu ñu dërëm kon ñooñu ñu leen di gërëm ñooñu loolu ñu gis nag du ma ko noppi di wax am na yeneen i parti aussi yoo xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi ñoom itam daw nañu dal si Mbacké Sylla am na ñeneen ñu nekk ci parti même au pouvoir daw nañu ne si Sylla neexul ba neexul waaye ci commune Golf bi Sylla bii daal xool nañ ba xool waaye xam nañ yaa ñu ci doy population golf ñi nga xam ne dañoo tëddoon ne bàyyi nañ politique doo bàyyi nañ politique dootuñu def dara bañ jógee ne Mbacké Sylla jóg na <clears throat> dañoo daal di jóg ñu daal di entamé si Sylla tam daal di wër ay nitam ay encadrement am ci la ma seetsee ku mel ni man ku mel ni Seydou Sawal yi nga xam ne dafa yor benn association mouvement associatif bu mag a mag fii ci ci partie premier tranche ak yeneen mouvement associé seet si ku mel ni seet si ku mel ni euh, Kiné Sow mii nga xam ne dafa bokk RDR Yeesal te ñoom ñaar ñu bokkoon fa nekk ak ñeneen ak ñeneen ñoom euh, Chimère njaay ñoom ñëpp yàlla subhaanahu wa taala def seen xool daal di tooy ci Mbacké Sylla ànd ñoom Mbacké Sylla ndax ndax xaalis ndax Mbacké Sylla nee na moom ay valeur lay jaay waaye jaayul koppar ndax bu dee koppar gaa ñu ko ëppale foofu moom nee na ay valeur lay ànd lay ànd ak nit nu ñuy defaree nit nu ñuy ànd ak nit lu ñu am loo xam ñoo leen ñu àndal liggéey lu ñu am bokk ci intérêt nag Golf Sud ba loolu amee ñu daal di déposé suñuy list comme ni ñu ko laajee liste yooyu ñu déposé nag kayit ya ñu laajoon yëpp déposé nañ ko wax dëgg yàlla comme loolu nga wax léegi sànq ma dégg nga koy laaj sama nga bi ci bulletin bu jaune boobu loolu dafa bokkoon ci document yi ñu laajoon ñu daal di koy déposé ba ñu ko déposé dañoo toogante xaar waaye à notre grande surprise il de y a de cela jours maanaam à soixante-douze heures des élections on nous a notifié que le bulletin qu'on avait déposé le bulletin jaune n'est plus le même bulletin que nous avec qui nous allons partir aux élections moom dañuy demee élection léegi bulletin boobu doxatul donc ñun bii la bi ñu jox mooy bulletin bii nga xam ne moom la gars yëkkati leen seen bulletin yi mooy bulletin yi ñu yor bulletin yi léegi lañuy jox waaye nag ñu koy sant yàlla subhanahu wa taala ndax ñoom yàlla mënoon noonu na xasal seen xel duñ ñu ko wax ba ca bési élection ba mu nekk surprise ci ñëpp waaye su yàlla suñu borom buy defar day mel ni koy yàq ñun nag dañoo gëm yàlla Mbacké Sylla dafa gëm yàlla ci loolu la ñu tàttagal ci loolu la ñuy digal digal loolu lañuy ñu xiirtal duñ ci xuloo duñ ci xeex la ñuy def mooy delluwaat ci suñuy militant waxaat ak ñoom xamal ne bulletin ba ñu waxoon ne moom la ñuy demee élection de bokkul ak bulletin bii nga xam ne moom la jox léegi waaye nangu lañ ko nag donte gën a luñu ndax bu ñu ko waxoon au départ def nañ lu mat dix mille bulletin waxuma t-shirt yi waxuma la euh, programme bi waxuma la affiche yi yëpp dañ ko defoon sur la base de bulletin jaune sur fond jaune mais léegi bulletin bi ñu jox Moi, c'est un fond blanc avec des écritures vertes, avec euh, euh ben sigle bu jaune frappé de naforé verte naforé nag ci ñi ko xam mooy nouvelle alliance des forces républicaines loolu daal laa bëggoon ñu xam ko xam ne ko sud ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Macky Sall dama leen fàttali nag benn mbir am na ñuy wër di wax sondage sondage boobu ñoom ci seen xel la nekk nit ñi kenn mënut a dox seen xel. mais sondage bi nga xam ne moo baax mooy ñi nga xam ne ay société civile lañu ñoo ko defal seen bopp ba ñu xoolee loolu ba gën a Mbacke Sylla mu nekk premier ki topp ci moom Mbacke Sylla daa leen ne ko lu mat 3500 voix ñooñu bañ ko yëgee dañ ne kii buñ jógul kat ndax soraale wuñ ko woon waaye yàlla suñu buy defar mel ni ko yàq kon nañ leen jóg pexe yi nag jeexul ñu ngi lancé nag un appel toute la population de Golf Sud nañu ñëw woteel Mbacke Sylla ci bulletin bi ngeen gis bulletin vert bi euh, euh, bulletin blanc bi fond blanc bi avec des écritures vertes na ngeen ko watal Mbacké la bu fekkee ne bëgg nañu Golf jëm kanam pour pousser Golf Sud sur les rampes de l'émergence asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bëgg na ko leeral ñi nga xamante ne ñooy askanu aussi. waaw jërëjëf Adja li ma leen bëgg a leeral rek mooy maa ngi leen yëgal ne Pape Amadou Ndaw mi nga xam ne dafa ñëw jàpp jàppale si ñu yëg nañ menaces yi ñu def ci moom lu ne ñu ngi koy wax saaga lu ne ñu ngi koy def di commencé ndax ànd gi mu ñëw ànd si dafa dafa nungu dogal bi yàlla xam li yàlla def moo tax mu bàyyi di jàmbaar loolu ñu koy def nag bu mu ko yëgal yaramam bu mu ko yëgal yaramam ñu ngi ci ginnaawam tey ñu ngi ci ginnaawam suba loolu naa bëgg mu leer. tey képp ku ko xam xamee ko ci hmm. euh, ci li nga xam ne mooy dëgg. dëggu rek. ànd ak nit. ci li nga xamante ni. Hmm. mooy dëgg. Hmm. tey jii moom bi mu xoolee. xool bilan ñëpp. xam ne bilan bi nga xam ne mooy bilan de foore. mooy kàddu dëgg. parce que ñooñu la mag ñu soxlawaat. tey jii mu ëlbateeku tey ànd ak njaaw yi. ñëw ànd ak Mbacké Sylla. tey jii tax ba ñu ci bari tey jii jug tey jii ngir bëgg koo fexeel benn affaire. ah man it ma yaakaar ne loolu noonu. ñoom ñi koy def. seen xarala fa toll. Ah, wala dañoo juum wala ah, dañoo. Ah, ñaar seen. <laughs> seen xel rek waaw seen xel a guddul ndax bu guddoon duñ ko jéem ndax koo xam Pape Amadou Ndao fitam ak euh, compétence am ak li mu man defe naa doo ko sóoru ñu xam nañ ci am na luñ ci xam yàgguñoo moom mais ku dëggu la dafa xam dëgg nag gis affaire bi xool ñu fi nekk ñëpp mu nat gis la ko doy mu ànd ca kenn ku ne am na ci droit kon nag ñooñu mandu te bañ a di yóbbal ay nit ñu saaga nit ak di jigéen gis dégg naa jigéen ko saaga lépp dégg ko ak ko menacer ak dañ lay fekk mais loolu du jàll nañu tey te dal kon bu kenn waaw kon ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp. waaw bon ñu jox rek ki nga xamante ne moo fiy toogal jeunes yi muy Aminata Chimère Ndiaye Aminata boo amee loo ci sànni par rapport ak. maa ngi nuyu yéen ñëpp si nekk si turam ak santam sama. di nuyu euh, monsieur le maire tonton si la di nuyu euh, sama maman bi toog euh, maman Kiné Sow ak maman Ndeye Khady Dramé ak tonton Top ak tonton yi nekk si ginnaaw ak ki fi représenté jeunes yi aussi muy Aram Diaw ak ñoom ñoo moo fi nekk tey ñu si des ñu ngi sur le terrain pour dem distribuer waat flyers yi parce que ñëpp xam nañ ne au dernier moment la ñu changé couleur bulletin bi à 72 heures des élections ndax boobu ñëpp xamoon nañ ne depuis presque euh, quinze jours ñu ngi woon sur le terrain doon distribuer ay flyers yi nga xamante ni nii euh, couleur bu jaune la woon am écriture en vert loolu la waxoon sur le terrain def porte à porte depuis plus de quatorze jours ñu dem ba démb o dernier moment ñu ne ñu léegi bulletin bi fond blanc la avec des écritures en vert léegi nag si loolu la xale yi nag jeunes yi ñoom ñëpp macha allah di leen gërëm di leen remercier waat encore une fois si motivation bi ñu am abnégation bi ak courage bi ñu am te loolu lépp tey jii lu tax ñu def ko amour bi ñu am si tonton Mbacké Sylla la ak ban fi nekkee li leen seen yaay ak seen papa yi seen maam yi raconté si magistère am ne moom la fi def te mu continuer di ko def nag ba tey si koñ bi di ko def si commune de Golf moo tax tey jeunes yëpp ñi nga xam ne tey ñoo jeunes yi nga xam ne kenn mënu leen woon génnee si dañoo jug di ko def ak courage ak amour ak foi def ko ak contenté nekk su le terrain pour jéem a distribuer waat euh, flyers yi fépp fu ñu jaaroon ñu jéem fa jaaraat xam naa nag di yomb. di yomb waaye yàlla moom mi ngi fi te yàlla dëgg rek lay àtte incha allah rabbi kon ñun ñëpp ñu ngi si ginnaaw euh, monsieur le maire Mbacké Sylla di leen wax ne leen bii mooy tey Nafoore bu bees bi mooy sur euh, des écritures en vert sur fond blanc ñu bind ci Nafoore en en couleur jaune. voilà moom la di nuyuwaat ñi fi toog ñëpp assistance bi ñëpp naan yàlla nañu yàlla jox ndam jour ba incha allah rabbi dana jëy Nabi Moustapha. mbokku Golf Sud mbokku première ñu ngi leen di woon fii bulletin nafoore mooy bulletin bu weex bi ànd ak écriture yu verte yi ci kaw moom en bu vert ñu bind ci nafoore en en vert en bu jaune ñu bind ci nafoore en vert bii mooy bulletin wu Mbacké Sylla l'ancien maire képp ku bugg a votel pour Mbacké Sylla ci commune Golf Sud bulletin bii nga koy dugalal léegi nag maa ngi leen di woon euh, naka ngeen di euh, dugalee bulletin bi ci biir enveloppe bi après dugal ko ci urne yi donc da ngeen koy lem bu baax ci digg bi ci digg bi ngeen koy lem lem ko ñaari yoon daal di jël enveloppe bi mu ngi nii ma leen koy won bu baax daal di jël enveloppe bi daal di jël euh, enveloppe bi dugal ko ci jël en kii bi dugal ko ci biir gis ngeen mais kenn du ko collé donc bu ngeen ko defee nii rek jeex na ci ngeen di dem après dugg ci urne bi daal di ko dugal ci bulletin ci kii bi urne bi donc euh, loolu laa loolu lañ leen doon présenté pour yéen ñëpp ngeen xàmmee ko daal waaw maa ngi gërëm yéen ñëpp. jàlloo mu wax ci li nga xam ne rek mooy non violence ñaan population Ngor Sud ñu dem voté ci jàmm bañ a tontu benn provocation. bañ a xeex bañ a ku leen saaga buñ ko faale ku leen cokkaas buñ ko faale nañ fa denk ci fulla ci fayda ak dignité xam ne liggéey moo leen fa yóbbu ñu liggéey suivre élection yi comme il faut benn tiraillement bañ am benn euh, tricage bañ am ba nga xamante ne dinañ ko wote ci jàmm jeexal ko ci jàmm ak une très grande victoire pour Nafoore incha allah rabbi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani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 ni ma politique bi doon doxee mais léegi Mbacké Sylla mii moo tax mu dellu parce que teraanga bi mu defaat dama ko fàtte ila yow mu diin kon nag yéen mbokk golf bi ngeen toog di wax Mbacké Sylla moo baax Mbacké Sylla mooy première maire golf moo baax maak lii Mbacké Sylla dellusi na golf laa caat na miiri golf yéen yëpp xale góor yi jigéen yi mag yi ndaw yi jàpp leen Mbacké Sylla parce que yéen gis ngeen mbiri Mbacké Sylla ku amul ku dekku ci maire bi benn liggéey maire bi deful leen dara kii def gis kay koo ngeen war a xeexal koo ngeen war a jàppale kon nag jàpp leen Mbàkke Sylla yëpp ne lu mu bëccëg suba ngoon ngir Mbàkke Sylla mi jaral na ma lu nekk nag jaral na ma lu ne Mbàkke Sylla yéen xali on ji Mbàkke Sylla oɗo nganndi Mbàkke Sylla Mbàkke mo noon fof huunde ala fof ko Mbàkke Sylla waɗnaani nafoore makko kayito woni ko nafoore waɗi heen neni nafoore woni heen o ko ool o change ɗum jooni watti daneejo waɗi tampo oola woni hen kala mo jiiɗa tam kon on woni hen ganda kanko woni makki silla ñaguede allah e nelaɗo mum yo allah walla men yo allah walla makki silla gaño e mairie golf ko jinneɗen ko dañen ɗum alhamdulillah rabbil alamin Bienvenue sur Salam Vision.